toll tey ñu am lu ñu dëgmal muy falu njiitu réew bopp réew mi RND war cee matal taxawaayam parce que matal taxawaay mooy daa am loo xam ne le bañ bañ ba parti bi tegoo suñu loxo ñu dénk ñu ak it fépp fu ñu mën a taxaw ñu waroon a dégg suñu kàddu mu màcc jëm ci nan lañ nar taxawee ci pal gi fësaloon nañu ne man awma sañ-sañ njiitu parti bi amul sañ-sañ taxawal nii la ñuy def wala naa la def wax ne comité directeur moom moo yor bi mooy dogal li nga xam ne noonu la fa la parti bi war a jaar waaye solo élection yi ñu jëm ak RND fa mu war a taxawaay bi mu war a taxaw ak na la war a mel ci réew mi te loolu mu aju ci xalaat yi nga xam ne moom la boot muy xalaatu Cheikh bi jëm ni mel ci Afrique ak ni mel ci àdduna ak réew mi tey ni ñu soxlaa ay xàll yu bees ñu waxoon ne ma waxoon ne jëlaguñu dogal kuréel gi comité directeur mooy dogal waaye li lees mën a jàpp ak jamono ji ma ko mën a laajee dama waxoon ne ci lii joŋante yi jëm RND du ci doon kuy seetaan ma waxoon ne RND du ci banque loxo jëloon rek mel melu euh, mu mel na ci stade football ma ne woon RND du nekk ci ci ci gradin yi fa ñuy seetaanee te du nekk ci banc de bi maanaam remplaçant li mu doon tekki mooy RND day dugg ci maanaam ci mbir mi te loolu fi ñu ko mooy ñun ñii nga xam ne yàlla moo def ak coobare ak doxalinu àdduna ak doxinu RND ak coobare ñi xam ne ñoo ñoo ñoo ñoo nañ seqal parti bi yàlla loolu def ba tey parti bi tegu suñu loxo ñu xool parti bi fa mu jóge ak fañ ñu ko joxee ak fañ la war a dem xool doxuñ bi nga xam ne ñun dox nañ ñun suñu jëmm yi rek dox nañ ko ci biir parti bi xool ki nga xam ne moo samp parti bi xool yéeneem ci Afrique ak Sénégal ak dayoo ay xalaatam ñu ne suñu waruwaay ak Cheikh Anta ak réew mi mooy que ñu wan leen ay xalaat xàll yu mën a tabax Sénégal yu mën a tabax Afrique yi ci kaw loolu lañ ne day araam ci ñun ñu bañ a jéem bokk ci mbir yi bi nga xam ne seet nañ seetantal xool lañ dafa lañ jot a dox lañ jot a def boobu ba léegi rawatina ci ànd bi nga xam ne àndoon nañ ko Benno Bokk Yaakaar ak président Macky Sall waaye comité directeur RND bi mu xoolee xool ñi nga xam ne ñun doxalee nañ ko ak ñi nga xamee ne sunu ñi ñu ko séqaloon doxalee nañ ko bés bii RND génn na coalition bi naan Benno Bokk Yaakaar ci coobareem ci seetloom ak ci dogalam situation Afrique yokkul globalement day dellu ginnaaw ci sax gi nga xam ne wala nekk ba fi ñu toll benn xeetu jëflante boo xam ne dox na suñu diggante ak bitim rawatina réewu tugal yi rawatina France tey ab laaj la bu samp gu jàmp ñu matal moom suñu bopp parachever notre indépendance nationale ci wàllu koom-koom ci wàllu sañ-sañ ci politique ci wàllu aada ak tànneef ba tax na kon jàpp nañ ne le Sénégal doit changer de paradigme l'Afrique doit changer de paradigme